xibaar yi fii si UCAB FM Pape Serra Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu daal leen jàmm ci rajo UCAB FM xibaaru digg ba bëccëg bi la gën a fës ci xibaari bokk na ca jongante yaatal mbindum alxuraan ñu doon amal naka joxam raay mi démb foofee ca Grand Théâtre ca Ndakaaru Touba nag am ci ndam ñetti tekk ya nga xam ne kon joxoon na ko muy doon ay moo ko gab bi doon ñoo xam ne kon ña nga jaare ca daara yi Touba ñànk lu jëm ci wàllu ko joxek raaya yooyu ak kàddu yu Serigne Abo ma nga xam ne kon kilifa daara jële kàddu yu feesal na ko danañ ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi danañ wax ba tey ci wàlluk eh, njàngoom alxuraan nag conférence yi dañu ko nemme ku jamono ji fenn fu ci nañu fay woote jëm ci wàllu ko jotaay jigéen ñi nekk doon soppee moo Modou Mamoun foofu ci Daaru Salaam amal nañu fa lu jëm ci wàlloole ci njiital soxna Ramatoulaye Cissé di chargé de mission kàddu yëkkati na ko dana ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi Ndayo Samb ma nga woon ci reportage marsokas ñaari mbir xool na ko fa ak ñi nga xam ne ko ñoo fay dem di ko wecceeku si weeru koor wi ndax liggéey ba ba tey ña nga ca tam ñi nga xam ne kon dañuy yëngu si wàllum jënd njaayum kol liggéey lu jëm ci wàllu danañ ci dikk gën ko yaatal ci biir jotaay ak xibaar yi altine bu jot jàngatu bàyyi Cheikh li gën a fës yéene kaay na ma a jotaay bi ne tuuti ndikkeen ci faram fàcc gi ndeem soob na sunu borom. xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye ab sayar mbay ci àddukaay gi ci machine bi cheikh bi yéen ci déglu bi rajo yi cap 103.5 di téeméeri ñett yu tombal juróom ngeen ñu déglu ci bande fm internet bi ñetti w point ad itv point net bi tam ngeen mën ñu cee seetaan jamono ji ñu ngi ci youtube bi cap tv live ngeen di def man ñoo seetaan fépp fu ngeen nekk ci biir jotaay xibaar yi ba tey mbokk yi ngeen di ànd ak ñun uh, ci rajo UCAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom di 103.5 waaye tam ci internet bi ba tey ni ko waxee woon euh, ngeen mën ci ànd ak ñun ci télévision bi ñetti w point a 2 itv point net xibaaru digg bëccëg gi 14 di ñaari waxtu jamono ji fanweer ak ñetti simili moo bootu ci kawam ñu wéyandi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen jàmm ci rajo ak ci télévision bu UCAB xibaaru digg bëccëg gi dañu koy door rek lu soxal feet gu Sénégal moom la fas yéene ba ëllëg ak jàmm muy feetu ko indépendance Sénégal fas yéene rek màggal bés bi mu moomee boppam muy feetu indépendance gu ëllëg ak jàmm lañu ko fas yéene amal tax nag ñu ngi ci wàll wàccaay ni ñu ko baaxoon nag saa su ne ñetti fan ci weeru avril njiitu réew mi président Macky Sall fas daje ak ñi nga xam ko ñoom ñoo di askan waxtaan ak ñoom mu doon discours à la nation bu ñu ngi koy xaar ci ponk yu fasantikoo yoo xam ne loole nag war na caa àddu mu doon discours bu UCAP ni mu ko baaxoo di ko ànd ak danañ leen ci gunge dégtal leen ko en direct vingt heures lay di juróom-ñetti waxtu ci guddi kon loolee ngeen mën cee ànd ak ñun ci télé ak ci rajo bi nanu ko baaxoo di ko def bu njiitu réew mi wax nasaraan ca saas ñu ànd ak moom di ko gunge di ko tekki ci kàllaamay kocc ngir ñi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi mën a àndandoo ñëpp xam li nga xam ne ko njiitu réew mi moom lay àddu incha allah lu jëm ci wàllu ko discours boobee UCAP mi ngi leen ciy joxaat daje kon maanaam ngir ngeen mën ko dund en direct ci kàllaamay wolof lanu leen koy tekkil jamono ji njiitu réew mi moo wax ci kàllaamay nasaraan mbokki xibaar yu digg bëccëg yi ñu wéyee nii. rajo. UCAB FM. 103.5. asalaamaaleykum ba tey xibaar yi mbokk yi ñu wax ci leneen ndam loo xam ne kon Touba amati nanu ko mu doon jongante bu jëm ci wàllu alxuraan yaatal mbindum alxuraan c 3 Serigne Seck ak ñoo ko doon taxawal loore nag concours bi matale na nanu ko ndax jébbaleem raaye ba doon bis bu mujj bi démb lañ ko doon amal ci dibee ji ca Grand Théâtre ca Ndakaaru mbooloo mu takku teewe woon fa nag ña fa bindu woon itam doon koy xëccoo bëri woon na nañu fa lool waaye nag yàlla def na jogget gi Touba moo ko jël ñetti teg yañ fa tegoon yépp Touba moo ko jël mu doon ñoo xam ko kon ña fekk baax ca wala boog ña nga baw ca daara ñànk joojee ñoom wala ña leen cinq loolu nag euh, lu jëm ci wàll wa mu doon ñetti prix premier deuxième troisième mooy ka jiitu ka ca toppa ka ca toppaat ñoom ñëpp waa daara jala ka ci jiitu nag am na juróom benn million ñaareelu toogu ba ka ko jël am na juróomi million ak genn wàll ka jël ñetteelu toogu ba am juróomi million ñoom ñëpp ñoom ñoo jël euh, waa Touba lanu mu doon mbégte lu jëm sax ci wàllu ko jébbale raaya boobu di remise euh, diplôme ya ak itam bañ doon wax ña gañee lu jëm ci cérémonie ba yotaay ba amal nanu ko ca ñu àndandoo ak mbokk yi dundaat ko. concours bi dafa yombul waaye teewul toujours li leen di teqalee tuuti lay doon nga xam ne kenn ku nekk mën naa jël ndam li waaye nag concours fokk dana am koo xam ne mooy ne ci kanam ak ku ca topp ak ku ci topp ndax bu ñu xoolee ki nga xam ne kilee mooy ku ñetteel ki ki nekk ci troisième position bi am na quatre vingt virgule six cent vingt cinq ci téeméeri point yi ñu ko doon laaj ci cent points yi am na ci quatre vingt huit virgule six cent vingt cinq ki nga xam ne kii mu jël deuxième position yi am na quatre vingt neuf virgule six cent vingt cinq quatre vingt neuf point virgule six cent vingt cinq ki nga xam ne mooy mooy ki jiitu kooku am na quatre vingt quatorze virgule vingt cinq na bokk yëpp bàyyi xel table bi wala écran bi ñu xool ba xam. aywa ñu xool écran bi ñu xool. ñu xool nañu ñëpp naa dugg écran bi ci nga xam ne dañuy tàmbalee ci troisième deuxième troisième baa ngi nii ñu bind gis ngeen. oh kii kan la waay. sëñ Moustapha kan mooy troisième bi. sëñ Moustapha Guèye kon moo génn mooy premier mooy troisième ah. sëñ Moustapha Guèye ñu tàcc ko bu baax. mooy troisième ci concours bi troisième bi ak lu ñu ko mën di jox sëñ Bas euh, xaadim awo ba tegal na ko ci cent cinquante ñu ne Seyda Adja Binte Thiaw moo koy jox euh, diplôme am moo koy jox itam enveloppe am troisième bi am na cinq millions bismillah jox ko sëñ bu baax a baax a baax macha allah sëñ Moustapha Guèye am tegal ko ci enveloppe bi ko sëñ Bas jox jox ko enveloppe baa ngi noonu diplôme baa ngi noonu ak kado bi concours bi li mu doon bari bari moom moo jël troisième sëñ Moustapha kon ñu xool boog deuxième bi deuxième bi waxoon naa léegi ne am na quatre-vingt-neuf points quatre-vingt-neuf virgule six cent vingt-cinq points digganteem ak benn point moo ci dox diggante troisième bi ak deuxième bi benn point moo ci dox kon ñu dem ci écran bi. aywa ñu xool écran bi deuxième bi. deuxième bi. noonu am na cinq millions cinq. Modou Diagne Modou moo jël deuxième bi. ñu tàcc Modou Diagne bu baax. sëñ Muntaxa Pakala moo koy jox neexalam. bismillah enveloppe bi la ko sëñ Bass jox. mooy am cinq millions cinq cent. sëñ Basiiru Xaadim awo ba tegal ko ci deux cent mille ñu tàcc du Diagne bu baax a baax Modou Diagne moo jël numéro deux ci concours yaatal mbindum alquran bu deux mille vingt trois am na cinq million cinq cent moom la ko C3S jox waaw Serigne Basiiru Xaadim awo ba tegal ko ci deux cent mille francs ni mu tegalee troisième bi cent cinquante mille ci nga xam ne nag moo jël raw gàddu gi di premier bi kooku am na quatre-vingt-quatorze point virgule cinq digganteem ak deuxième bi quatre point et moo fi dox ñeenti point ak genn wàll digganteem ak ku deuxième bi kon ñu xool écran bi ba xam. Cheikh Dieng moo gagné première bi. am na 6 million moo yëkk mi ngi noonu sëñ Modou Mbacke si moo koy jox. am na 6 millions moom mi gagné concours al bind bi. di sëñ Cheikh Dieng sëriñ Basirou Xaarim awa ba tegal ko ci deux cent cinquante mille ñu tàcc ko bu baax a mbokk yi. sëñ Mbacke. waaw moom moomu ne ab jàngalekat la. maanaam depuis ñu commencé liggéey ba léegi. bokk mi ngi bokk. fi mu doon tey boo ko fekkoon famille naafi la doo nangoo dem ndax alxuraan ju neex. macha allah maanaam jàmbaar la ab na alxuraan. macha allah depuis ñu commencé ba léegi day bokk ci liggéey bi. macha allah loolu am na solo sëñ Mbacke ki gagné concours bi jàngalekatu alxuraan la biñ tàmbalee ba léegi mi ngi bokk ci concours bi. waa léegi nag li ci des rek mooy ñu toog nangu ñaan tëj jotaay bi sëñ euh, xabbaan bu Cheikh Mahamadul Fadal mooy ñaan insha allah ñu yëkkati jotaay bi sëñ Moustapha kon bokk yi El Hadji Serigne ak sa gan ñu tedd ñi waa comité scientifique waa jury bi ñu ngi kon di leen sant te di leen gërëm ñaan suñ borom euh, def barke ci liggéey bi dafa am nag mbokk moo xam ne ku bokkoon ci concours bi la te gañe at ya passé ñu koy wax sëñ Saliou wu Kajoor. sëñ Saliou Mbacke Kajoor mbokk yi nañ toog nañ rek benn minute rek sëñ bi yee ci kaw jàkkaarloo yéen ñaan. sëñ Saliou Mbacke Kajoor yàlla dafa dogal ci moom mu faatu. sëñ Saliou Mbacke Kajoor bokkoon ci ñi nga xam ne ak maam Thierno Ndiaye kon ñuy sàkku ci jullit ñëpp ñu jàng fatiha ak lixlaas ñaanal bokk yi nga xam ne dañoo nekkoon ci concours bi suñ borom def ñu faatu loolu doon kàddu yi doon doon ko ca fésal jëm rek ci wàllu ko kon loolee di taxawaay bi nga xam ne kon ñoom jot nañu ko ca nemmeeku doon concours alxuraan bi nga xam ne doon nañu ko amal foofee kon ca Ndakaaru nag ñooñe bawoo ca daara yi ñànk wala ay jeexitalam ñoom nag am li nga xam ne kon moo jëm ci wàllug ndam loole loole nag di ndam lu am nanu ko tax nag ñoom ñooñe ba ñu bawoo Ndakaaru dañu jubal ca sëriñ Abo Guèye bi nga xam ne moom mooy kilifa daara yi ñànk jamono ji lu jëm ci wàlloole ak taxawaay bu amal nañu ko ca moom nag eh, jot nañu ko caa gaaral lan moo doon tànk yi ak itam luy jëm ci taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nanu ko eh, ci wàllu ko liggéey bu amal nanu ko ca sëriñ Abo Guèye nag am ci loolu mbégte laata loolu kenn ci ñi nga xam ne kon ñoom ñoo doon wax ci turu eh, mbooloo mi nga xam ne kon ñoom ñoo fa demoon muy ci ñànk goog nga xam ne kon def nanu fa jotaay ko waxtaan ci suba sax jotoon ngeen teewlu kàddu yi nga xam ne kon ruuse na fa kàddu yu yëkkati nanu ko fa ci ñànk loolee nga xam ne kon moom moo dim ci wàllu ko taxawaay bu nemmeeku nañu ko ci euh, ginnaaw bu ñu jëlee ndam la ci kanamu Serigne aboo Guèye kàddu dénkaane yi nga xam ne kon seen kilifa yëkkati na ko ci kanamu Serigne Abo Guèye dénkaat leen ko waaye tam ci ndam li nga xam ne kon am nañu ko ca ñu àndoo teewluwaat ko. Euh, di la ziyaare lu mag lu rëy lii nga xam ne sa ndam ndax yow la ko yàlla jaarale ci sa loxo te nga moom ko ci wet yëpp kon nag ñu ngi ci ndokkeel di la ci sargal di tatagal bu baax a baax di sàkku ñaan it sama rakk yi nga xam ne ñu ngi sama ginnaaw te kenn ku ci nekk li ñu daal a jugee mu jugee ko ci turu daal a bay sëriñ bi njànk boobu di liggéey bu rëy bu yaatu bu law boo xam ne man ma nga jógee ci yu mag ña muy jégalu sëriñ Soñ bu loo xam ne joxoon na mu topp ko nam ko war a toppee ba yàlla may ko ci ndam yoo xamante ne am nañ yaakaar yoo xam ne daa mel ne yàqin ci ñun ndam yi noonu lay toll fu ñu toll ndam yi di gën a feeñ yàlla na ko yàlla suñu borom gën a saxal ñu di ñuy sàkku ñaan nga ñaanal euh, gone yi nga xamante ne ñoo ñu demaloon wicc delloowaat ko ci sagoom ba mu delluwaat te ci doon liggéeyee te bañ koo teg kenn bu ko defee ñoo xam ne euh, la ciy xawoon nuru mumbaay ak ak néew kon loolu moom dañ koy sànni fële dañ daa xam bu fekkoon dara xewul sax duñ ko def waaye bu lu mel ni amee nag dañuy jël lépp lu ci nekk luy mbiroog folklore wala ay caaxaan saa ñu ko ne ndam ni daal lañ ñëwoon nañ ko jël indil ko suñu eboo mu ñaanal ñu ñaanal daara yi ñaanal waa daara ñëpp bu ko kenn ku ci nekk it eh, bu ñu jugee ci jotaay bii nag ñu xam ne sii noonu lañ koy dundee kenn ku nekk mën a delluwaat ci ay yitteem delluwaat ci ak njabootam lépp loo xam ne si ne war na cee toppaat ci ginnaaw yi incha allah bu si ne boo joxee ndigal danañ ko jëfandikoo bu yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi loolu ñu ko doon yëkkati ci kanamu Serigne Abo Guèye moom Serigne Abo Guèye moomee di kilifa ka daara ñànka nag am ca lool mbégte mu ne nag mbégte la mu ci am kawe na lool ndax naam ndam yàgg na fa am waaye nii ñu ko doxalee lii nag guleet mu gis ko ndax ndam lañu am jàdduñu fenn dañoo ñëw jubal ci moom doog nag xool feneen fi ñu doog a jëm kàddu yi Serigne aboo Guèye yëkkati na ko fa si jotaay ba ñu àndoo teewlu ko. de ko jaarale it fi mu jaarale woon xiiwal gi muy suñu am laat mi nga xam ni suñu bàyyi bu fekkee bu fekkoon day gàncax bu ñuy jariñoo wala dugub ji ñuy jariñoo wala lu mën a jariñoo rek suñu am laat fàggu jiwu woowu moo ko tànn mu mën jiwu mu aar ko it ba yàqu mu ji ñu mu ji ko ba mu ba mu weesu yàqu mu teg ko ci loxo Sëriñ Sooy Mbàkke Sëriñ Sooy bu def ci yitteem jëpp ba ba mel ni bagaanu cere goo xam ni ña ko waram moom ñoo ko tiim ña ña ko wërta moom di ca xaaraan ñu cay coppati di leen jox loolaay indi lii lépp ak la wees cant yooyu kon ñoom ñoo ñu ko moom ñu ngi leen koy delloo di ko delloo bàyyi sëriñ ci jom jëm amal ci fuñ ko dij mu nangu faa diju luñ ko nekkaloo mu nangu saane luñ ko wéyloo mu di sa wéy ba ba ba liggéeyam bi aksi fii mu te taay dina mu si ci benn cër lu ci am ginnaawam addinaa dox ba indi ko waaye ba mu fi ne addina mosu koo jëlal dara bëtalewu ko it ci dara mm, njariñ liit ak tuyaaba ji yàlla na leen ne ci barke Sëriñ Tuubaa ndax loolaa cee moo cee la ko amal njariñ sëdd na nag sama xol ci yu wet yu bare bare bare bare ndax lii daana am defe naa ñetteel bi yoon a ngi nii muy ñëw ci turu ñànk mus mus ta ñàkk a itam ndax ñu mas a tege ci seen loxo rek dikk nañu fi man xamal ma ni liikat kat bu amee ginnaaw yàlla ak bay sëriñ ak seen taxawaay yéen ñun si baax waaye nag nii ngeen ko defee moom tey la ma saam maanaam jëlee ko fa mu jógee jaaru leen seen kër baay jaaru leen ci ay commission jaaru ci ay mbootaay lu laajte fu ma ne ba xam ko fekk ma fa dekkul ma fenn loolu moom bu leen tey moo tax nag àgg na ma fu ma dara mustàgg ñoom ñii tamit yooyee nañ fay lu rëy fi man dama ko fàtte mat jaay mii ki topp moom sam donga moom fekkante man bi fekkante bi bay sëriñ moom it yàlla dafa dogal bàyyam maanaam doy loon dogal bàyyam moom ma doy daanaka sax mënu maa gis ndax ndax ay jooy fi nekk topp ci ab taaw man mii la ko tuddi te da koo jëbbal ma ko newoon na ma xale bi yëmu ci jàngal loolu ko waaye dama la koo jëbbal mbirum addinaam ak mbirum aw definam dara gënul ci mi ngi nii xam nañ loolu am Moustapha mi moom suñu doomam ndax yaayam suñu mag lay wujjee bàyyam itam fii ma gën sama gën yi féete rek la ma la bàyyi féete woon sama bàyyi loxoom woon ci lépp ba loolaa waraloon sax nangu wutoon mu dëkkee fenn furut mel ni mbedd mu dox seen diggante nga xam ne bu fekkee ci sàkke bi mu ngi am njaalak doxu ngoroog doxu bokk ak lijjanteeg lu mu mën a doon Alaaji Ibrahima Gueye moom ne ko sama bàyyi laa def loolu ak Moustapha Diop tam nangu ko wan ko lool nag kon nag dafay mel ni sag mu doon itam njëmbat ndax lii moom daanaka moo koy xool nii soññ gone yi ci kanam ak itam xam ne rek eh, lu baax moom ku ko wut mën nga ko am waaw ndax ku ci ne man na maanaam ci coobaram la demee amu ci kenn ko xam ne maa la dangay dem wala ma tànn doo dem ñu njëkk dem ak ñii ak ñi xale si dañëw ëllëg ñoo si sant nañ nag suñu tubaab baax ndax lii moom guleet ci senegal sa daan laata am itam ab deuxième lay doon waaye ñett ndam yëpp bokk jóge fi benn barab mm-hmm. guleet tey waaw tey buñ ci doon sédd sédd sama sama sama taxawaayu wax wala dajale journaliste yi wala dem ci invitation boobu bu bu bu buñ tegge woon waaye nag jëf ji fam fam fa dayoo rafet àgg àgg na fa dugg dugg na ma it waaw bu ngeen demee nag digal naa leen la leen digal leen ba ngeen di yëg ko ne ñaari ñi moom na nga am seen ngërëm sa baay bi la jur ak sab sëriñ bu ngeen demee itam bu ngeen jógee fii kenn ku ci ne fan a wutal kër gi nga dëkk waxtaan ak kala yilif bu dee sa baay gi dund yoonum la jaaraloo nga jaar ci loolu mu def ko ci nga def ko bu ko taalee bu la naqaree bu fekkee sa bàyyi dundut sa taaw bàyyi lu ca bàyyi ko la ñaan naa barke wàcc ci bu def képp métti mii ngeen nekk itam nga xam ne ci la bàyyi sëriñ nekkan muy wéel lii ba nëpp di jàngale yàlla jëm kanam ndax suñu sooy bu kat lii ci la ñu yar jëf rek wax ji moom ak sama kitab laag lépp bu jëf jëfee jëfal rek waaw daanaka yaa ngeen jëf sant nañ leen nag bu baax yéen ñii ñëpp di leen digal ngeen doolee ànd rek waaw ñun du lu ñun dolli ànd ñaan googu Moussa nii di wax itam mën naa wuutu lu ne waaw amu ci dara loo xam ne jafe na ma wala ma di ci tiit waaye nag ñaan gi daal moom suñu yitt la suñu digg suñu borom ak suñu digg ak bi ak suñu diggante kooku wéra loolu doon uh, kàddu Serigne Abo Guèye ci loole nga xam ne kon aju na ci wàllug ndam loole nga xam ne kon daara ñànk am nanu ko Sénégal am ko Touba am ko ci jongante ab alxuraan boobee ñu doon amal kon tëj li ni ki démb foofee ca euh, ndakaaru ñu koy ndokkeel ci turu mboole moment bi rek ñuy jaajëfal sëriñ aboo Guèye ak ñamu àndal lu jëm ci wàllug liggéey bi ak mboole waa daara ñànk ak lépp képp ku fa mas a jaar waaye tam képp ku yëngu ci wàllum alxuraan mbokk yi ngeen ñu topp ci rajo ak ci télévision bi kaab xibaaru digg bëccëg gi 14 heures di ñaari waxtu juróom fukki simili boot ci kawam ñu weendi UCAB FM fii ci Touba Ndam 103.5 rajo UCAB FM reportage bu bés bi Ndeye Awa Samb tey ma nga woon na ca jaaykatu kol yi ci koor geek ñoom seen kol yenn ñoo gën a jar ak ñu koy gën a jëfandikoo ndax liggéey bi am na soppiku ci weeru koor wi ñoom seen ñenn ci jaaykat yu dajee nag ñoom ca marché Ocass doo àndandoo teewlu leen. Mouride Thiaw taal bi Sëñ Saliou koor gi moom wax dëgg yàlla moom ah, client yi dinañ faral jënd kol ndax parce que Touba. xale jigéen yëpp dañuy muuru moom si ëpp dañuy muuru moo tax moom ah, njaayam koor moom instant bii nii xaw na xaw na balancé tuuti daal waaye bu demee ba si moom nit ñi dañuy jënd kol bu baax a baax baax parce que dëkk bi ak li ko wër yëpp dañuy li ñu gën dugg kol yi di gën a dox na yàlla moom non ça dépend nag si kol yi nga bëgg parce que kol dafa ay modèles yu bokkul ay col muslim ay unique euh, ay col perlas col Dubaï yëpp dafa am ça dépend benn bu nekk ak prix bi am na ay col yi sept mille am na deux mille am na mille cinq cent am na mille franc koor gi nag fekkee mag ñi day jënd col bu gën a mag ak col waasili mi mag parce que day mën a julli fekkee col coton bi coton la boo ko muuroo dafa lay jàpp dafa lay bii kerab la ñu niloo moom daanaka bëriwul si léegi mais lii col la saa wa diggante boo xoolee col bi nii sax dafa xaw a saa ci coton tuuti ndax boo xoolee boo boo boo ñaqoon tey maam ndox mi man na col bi mën na naan ñaq bi bëgg na comme col kere bu njëkk bi nga xam dafa ñagasoon nga xamante ni boo ñaqee man na taani si kaw du wàcc mais col bi col coton la comme col la mais dafa nooy wala mi comme alaas yi dafa nooy dafay jël dafay jël ñaq bu baax a baax koor gi isaan yi gisi guñ si waaye saa suñu xëyee ñu ngi sant yàlla ndax ñu ëpp ay borom kër leen waaye saa suñu xëyee suñu borom suturaal leen teral leen bu tëbës bu événement bi ñëwee korite gi tamit day gën a dox dong col moom amuñu ay. Euh, col bu la neex 1000 francs. bambalaat waaw col bu la neex 1500. Ah, col yi moom sant yàlla rek. nee la nee naa la euh, na nag c'est que col bu la neex 1000 francs ñu toog moom. chaque jour daal danañ def li nga xamante ni moo ñu war. waaw lu ñu jaay rek xam ne loolu la yàlla dogal. waaye tamit wax dëgg moom euh, ni mu doon doxee moom instant bi mu wàññeeku na moom. waaw xam naa que ne. koor gi nag programme bi yooyu noonu waaye daal li ñu doon doxee daal wàññeeku na koor gële di passé li nga xamante ni moom lañ doon jaay ci weeru koor dañuy toog trois mois yoo xamante ni bu dul woon koor duñ ko mën a jaay kon c'est que weeru koor bi daal ñu ngi ciy jaay bu baax a baax ñu ci gis suñu bopp ndax xam nga rek ren ni mu demee ne situation marché bi xam nga loolu moo tax mu xaw a taxaw nii waaye wax dëgg yàlla koor moom dañuy jaay ba xam ne jaay na instant bii nii kon bi ñu wax euh, fële ren ak kii bi mooy serre bi amul boobu loolu doon reportage Ndeye Awa moom sax ba mu jógee ci kool ya ñoo xale na dugg ca jàkka ja foofee ca marsokaas jaaykatu téere yi ñoom itam ndax ñi nga xam ne kon ñoo di askan wi ci weeru koor wi gën nañu farataal njàngum alxuraan ak xasida yi ndax liggéey ba ma ngay dox ñenn ci jaaykatu xasida yi nekk foofii lañ ca dénk Ndeye Awa ba tey ñu teewlu leen. waaw jàkkee marché occas waaw weeru koor moom bu jubee mm, dana dëkk bi dina changement ci téere yi wax dëgg yàlla dañ nit ñi dañ ko gën a di gën a wut ci alxuraan yu baax baax baax di ci jàng ci xasida yi ak lenn ci kurus yi surtout ma kurus yi électronique yi yooyu soxna yor noonu waaw yooyu moom moo ci gën a moo ci moom wax dëgg yàlla ren moom euh, fonk nañ ko loolu daal waaw moo tax na xam naa jàpp naa ne euh, dana gën a dana gën a permettre nit ñu gën a góorgóorlu ci ak jaamu yàlla daal. xam nga dëkk moom daanaka dafa am nu muy demee surtout ma xeet daara yi euh, daara yi euh, daara ëpp lu ñuy ñëw fii bu fitur école yi xasee jàll li ci ëpp daara yi wala seen daara yi wala comme suñu mbokk nekk ci marché bi ñoo gën di lu ñuy gën di ñëw fi daal ñoo ëpp lu ñuy ñëw ñëw fi ci waa jàkka ji waaw bu jàllee na moom daanaka comme comme marché bi mel rek yenn saa yi mu am changement yenn saa yi mu mu am mu am kii waaye koor gi wax dëgg yàlla téere lañu gën a fonkoon tere alxuraan yi xasida yi waaw surtout maanaam Mafaatihul Bichri wala Nuuru Daarayni eh, Jaalibul Maaraqib wala yeneen xasida yi ñuy waxtaanee surtout yi ñuy yi gars yi di nii li ëpp dañ ko fi gis fii. Mm, def conférence. waaw waaw comme ñu def conférence yenn saa yi ñu jël benn xasida wax njëriñ li. lu mel ni fan yee ci euh, na sëñ boobu Touré sëñ Bachir Touré doon waxtaan ci toxal mu daray na waaye xawoon na na ci am solo. Bachir Touré Touba Moussa Ka. ci yàlla weeru màgg yi moom ci gën a sant rek ndax weeru promotion la waaye yëpp xam ne bu ñu duggee ci koor moom njaay mi day xaw a am nañ demee ndax temps bi day xaw a gàtt daanaka boo julee tasaan lu dolli da nga daal di tëj waaye nañuy sant bu baax moom alxuraan ji xasida yi ak kursi ko wécc ko bu baax a baax a baax. liggéey ñi ci sant bu baax a baax a baax xasida xanaa yëpp luy ñëwee ci waaye daanaka nooru daay nekk jaay bët maraax ma faatu yi bëgg nañ ko dox na lool ci koor gi wax am na am façon moo ba ñett am na façon yu góor am na jigéen yëpp li ñu koy jënd góor ñaa ngi koy bu dee bu simple bi rek moom ñun seen xaa nañ koy détaillé bu dee bu mag bu dénk bi 4000 lañ koy yore ci ko loolu doon ñuy jaay wala ba ñu wecceeku xasida yi nekk foofee kon ca euh, jàkka ja ca marché Ocass mbokk yi ngeen ñu topp ba tey ci cent 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi baw ci ndaam weeru koor week conférence yi bëri lool kenn ku ci ne di woote ca Daaru Salaam kuréel gi lëkk lëkkale jigéen ñi wooye seen bopp soppe Serigne Modou Mamoun ñoom nag amal na nupp jotaay kër nekkoon ca booba nag di soxna Ramatoulaye Cissé moom chargé de mission la dellusiwaat na ci lu jëm ci wàllu ko taxawaay ba ñu teewlu ko ci micro Moustapha Ndiaye. conférence bi tax ñu def ko mooy. dañoo am mébét togg ay ndogu. togg ay ndogu joxe ko ci daaray daaru salaam yi. comme mbooloo la. mbooloo day dajaloo doon benn. ndax mën na maa jël sama dërëm. ak dërëmu keneen ñu boole ko wala ma jël sama alal bopp kese togg ay ndogu. waaye loolu di jiite mbooloo. mbooloo soo ko dee jiite. sooy jiite mbooloo. da war boo leen di dajale. politique di leen dajale ci leneen ak leneen su lu baax dikkee nga ànd koog ñoom loolu biñ fi jëleet ñu togg ko ay ndox xam ne dërëmu ñëpp ngi ci dërëmu ku nee ngi képp koo xam ne teew nga fi mbaa nga yónnee fi dërëm rek soobee yàlla sa dërëm dana dem ci ndog yi ñu fas ko yéenee togg àllarba bii di ñëw séddale ko daara yi nekk fii ci daaru salaam ak séddale ko way néew ji doole yi nga xam ne ñoo nekk fii ci daaru salaam loolu tamit suñu ko dee dañ ci soxna maam Anta mi nga xam ne mooy mag ci sëriñ Ablaye ja seni sëriñ Ablaye moo ma njëkk xelal daaw ne soxna Ramade sase naa la bu déwénee jàmm nga togg ay ndogu séddale ci daaray daaru way néew doole yi Daaru Salaam ci laa xalaat ne na ànd ak groupement bi ñu suñu conférence recette bi ñu fi jëlee ñu defee ko te di ñaan yàlla nag mu sax mu saxa saxa sax bañ di ci def di togg di yóbbu ay njaar fu nes ba romb Daaru Salaam di togg di yóbbu ay Touba loolu lañ ciy ñaan ñu ciy tàllal loxo ñi mbooleem autorité yi ñu ngi leen ciy tàllal loxo di fas ne liggéey bi ñu setal ko sellal ko toggal ko daara yi toggal ko way ji doole di ci sant tamit suñu monsieur le ministre Gallo Ba ndax man Gallo Ba mooy te baas bi tey bu taaru wala mo jëmm ni grâce à Gallo Ba moo ko def ndax bi ma ko waxee rek ne ko damaa bëgg a conférence àggaguma sax ci togg ndog wala dara daf ne ma baas bi dinaa la ko defal te na ma ko waxee woon na la ko def dara defuma ko ci seize ak lépp moo ko fi indi maa ngi koy ñaanal euh, fi mu bëgg a àgg yàlla na ko fa yàlla ak di ñaanal tamit sama waa mbootaay ndax saabu ma nee leen jóg leen ñu xamuñu naaj na xamuñu tàng na tey ji li muy tàng tàng gis nga lépp saabu méttee ñi ngi ànd ak man su neexee ñi ngi ànd ak lépp lu ma bëgg ñu ngi ceeg man su dee politique bi ñu ngi ceeg su dee ñuy dem ci ndey daara yi ñi ngi ceeg man kon maa ngi sant mbooloo mi di sant sama borom kër Serigne Bara Cissé ndax lu ma am moom lépp lu ma am ci daaru salaam sëñ Baara Cissé la moom ak kër gërëm loolu doon kàddu yi soxna Ramatoulaye Cissé indépendance ëllëg ak jàmm lañ ko fas yéene màggal ngooye moom ñoo ngi koy waajal loole nag tax Moustapha Ndiaye kenn sax ci njiit yi nga xam ne ko ñoo nekk foofee ci askan wala nga xam ne kon jot nañ ko caa dund ak itam lan cee xaar ci màggal googee ñu teewlu ko. ku ci nekk ku juddoo Sénégal yow xam nga fête d'indépendance dara nan buñ ko caaxaanee dara fële lañ koy célébrer ca commune ba fële ci sous-préfet ba foofu lañ mos di boobu depuis ñun ay gos ba léegi ah, ko rafetlu rek di ko rafetlu rek parce que indépendance euh, moom fête de la euh, vraiment euh, am na am na valeur yu bëri man à travers lañ ko mën a jàngale xel loolu doon kon lu ñu jukkee rek ci loolee di waajaayu feetuk indépendance gi foofee kon ca Ngoy mbokki yi ko baaxoo altine bu jot jàngatu Baye Cheikh Cheikh Amar la ñu cay àndal jàngat bu ak taxaw seetlu bu jot na ko def ñu àndooteelu ko. jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lu xew wala lu xewati mbokk yi laaj. laajaat du bari laaj de bëgg ko la tontu la mbokk yi Touba mooy deuxième ville du Sénégal gannaaw Ndakaaru capitale bi waaye nag mbokk yi feeñul ci kayit yi ñu ngi waaj a recensement ci réew mi ngir ñu xam lim bi yeewoo ci Sénégal ñu war koo jox gëdd war koo jox yitte ci dëkk bu sell bii du Touba ngir lan nu mën a xam lim bi fi yeewoo ngir gën a mën a taxaw dëkk bi ngir gën a mën a taxaw waa dëkk bi lu tax at mu jot ñu ñuy bindal lu méngoowul ak lim bi yeewoo ci dëkk bu sell bii di Touba kenn jéemu ci dara nag mbokk ndax xam lim bi dina tax ñu gën a mën a taxawu dëkk bi ci fànn yépp nag amul benn dëkk ci àddina buy màggee ni Touba di màggee te amul poor amul aéroport amul usine li ëpp di ay ndaw yu góor ak yu jigéen yu sawar te nangoo liggéey di déglu benn kàddu képp mbokk yi ndax jotul ñu gën a jox dëkk bi yitte tànnal ko ay njiit yu méngoo ak daraja ak dayob dëkk bi mbokk yi dëkk bi yittewoo na ko mbokk yi ndax mbooleem lu ñuy naal fii ci dëkk bi mbokk yi moo xam muy bàyyeekoo ci état bi moo xam muy bàyyeekoo ci commune bi li ci ëpp daa tagga témbe yii taxaw na yii bu yeggee du baax ndax ñàkk taxawu la ndax ñàkk xam-xam la ndax ñàkk mën man la wala ñàkk nosu la mbokk yi damay laaj rek ndax jotul ñu def ak taxaw seetlu ci ñi ñu dénk dëkk bi mbaa du am te bu ko sa loxo laal la du ñu naal lu yegg duñ la dikk lu ñu def te dara du sotti ci seeni loxo waaw lu xew mbokk yi fi jamono toll di jamonoy booloo Touba di benn dëkk ci juróomi téeméeri bokk moomeel yi ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci réew mi di trente mille ectare kenn la ñuy déglu kenn fi am sañ-sañ mbokk yi amul fenn moo ne waxoon na leen ne diirub lu ngeen fiy nekk fekk da doon jàng liggéey baa ngi doog a door ana fu ngeen ci toll juróom-ñaari at a ngi nii ci gannaaw mbooleem lu ñu naaloon tàmbalee ca zone d'enfouissement technique ba am solo lool mën a jur njëriñ ci dëkk bi ndaw ñi am fa ay xëy ma nga nee tagatémbe 2016 ba léegi assainissement eaux usées ma nga tagatémbe juróomi barabu fajukaay yu pakasen ma nga tagatémbe lu xew mbokk yi feu rouge yi pavé yi centre de santé bi ndax Touba dafa tumuranke ay boromi xam-xam ndax Touba danoo tumuranke ay boromi mën-mën damay laaj rek ku xam wax ma statut Qatar lu ñu bëgg a def des na ci ñun parité baa ngi nii firnde ci ndax li ngay laaj am nga ko ba nopp koo sa France Rome ca Italie Touba ci Sénégal mën nay doxalal boppam yoral boppam lu bëri ci biir dëkk bi te du dàqonteeg dara nekk gi mu nekk ci biir Sénégal bokk yi waaw mën naa ne ba ci diplomatie Touba amul benn secteur la des na ci ñun rek statut spécial baax na commune dara d'arrondissement baax na waaye li Touba yittewoo mooy ay nit ñu xam mooy ay nit ñu man mooy ay nit ñu dañu réer te am reer ñu dénk leen ñu doxal mën naa ne ndax daf ñu koo jaralul wala dañoo ragal boroomi xam-xam yi rek nañu leen ñam ba xam Serigne Saliou de newoon na dëkk bii de yor ko dafa laaj xam-xam mbokk yi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut waaye charrette du juutu fas de am déet damay laaj rek mbokk yi jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM Cheikh Amar ñu di ko sant di ko gërëm ci taxawaay ak jàngat boobu nga xam ne kon jot na ko caa def ci loole kon di eh, jàngat bu altine bu jot eh, la ci ànd ak ñun incha allah rabi ñu koy joxaat daje ci beneen ak altine ñu fàttali leen li gënoon a ci xibaar yi laata ñu koy tëj. xibaar yi fii si UCAB FM la gënoon a fees ci xibaar yi bokk na ca ndam lu Touba ak Sénégal amati nanu ko mu doon rek jongante mbirum alxuraan boo xam ne kon doonoon na ko amal Touba ñoo jël ndam li benn ñaar ba ñetteelu toogo bañ ca doon jongante yëpp ñoom ñoo ko gob bi muy ñoo xam ne kon seen i jeexital mu nga ca daara yi ñànka loole nag Serigne Abo Gueye am ca loolu mbégte jot ngeen teew la nga xam ne kon jot nañ ko ca fesal ci ay kàddu waaye itam jamono doon joxe lu jëm ci wàllu ko jot nañ ci gën a yaatal koor geek uh, jaaykatu kol yi waaye tam ñay weccu ko xasida yi loole nag Ndeye Awa defoon ci ab dem na xooli leen jot ngeen teew la ne kon jot na ko caa taataan ci biir jotaay xibaar yi ko cee amal foofee nag ñi uh, tuddee seen bopp soppee Serigne Modou Mamoun ñoom itam toll ci jot na ko caa indi ci biir jotaay ko xibaar yi ci kanam bu 20 heures jotee njiitu réew mi président Macky Sall fas yéene waxtaan ak askan wi mu doon uh, discours à la nation bu 3 avril bu jot day am loole da ngeen ko dund incha allah rabbi en direct ci rajo UCAB jamono ji njiitu réew mi wax kàllaamay nasaraan danañ leen ko tekkil. ànd ak moom gunge ko ci kàllaamay wolof ngeen mën ko dund ci rajo beeg ci tele bi yëpp en direct lay doon incha allahu rabbi bu 20h jotee jàngatu baay Cheikh lañ tëjee jotaay bi mu doon jotaay boo doon ci ànd ak yéen saa su ne ñu koy sant ko gërëm di ko joxaat daje incha allahu rabbi ci beneen nag altine. waaye ci noonee rek la nuy faf jaare dem fële nga xam ne kon moom moo di ca institut al azar ca jumaay ndaam ja fekk fa si Sissoko jamono ji sax mel ne jàppandi na Sidi ginnaaw nuyoo bi. waaw eh, jamono ji yaa ngi foofee kon na ca institut Al Azhar di waajal lu jëm ci wàllug euh, lii di waxtaan yu dañ ko fee amal bés bu jot tey lan lañ mën a jàpp ci waxtaan wi kan moo koy taxawee ak lu ngeen di waxtaanee. waaw jërëjëf euh, Papa Saer comme ni nga ko waxee rek euh, ñu ngi fii ci jumaa ji ci institut Al bu Ndam bi niñ ko baaxoo di defee boobu ba léegi ba weer ci jumaa ji nga xamante ni taal yi nga xamante ni taal yi nga xamante ni taal yi nga xamante ni taal yi nga.